moom la waxoon ci askanu Sénégal amul lenn loo xam ne Macky Sall daan na ko say jëfee ndax nag moo fi nekkoon bëccëgu na a kàmb wax ne njëg yi moom dañu koy wàññi njëg yi moom duñu ko mosu yokk ci réew mi te nag jamono ji njëg yépp dañu koy yokk askanu Sénégal ne loolee Macky Sall ci boppam la mu waxoon bukkul ak li nga xam ne moom lay jëfe jamono ji yéen kaay gi de la Soleil xëy na nag dañu leeral ana njëg yi lan moo tax mu yokk yéen kaay gi de la Quotidien mu ñu xamalaan ñu niki démb am na ndaje moo xam ne doon nañu ko finance ak ministère bi ñu dénk wàllum jënd meeg njaay mi ak ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ak consommateurs yi yéen a kaay gi nee na la nga xam ne nag moom lañ doon waxtaane lu jëm ci wàllum njëg yi nga xamante ni jamono ji cher na ba maara détaali ana nan la ñuy nasee nag ay pexe ngir nag daal di koy wàññi yéen a kaay gi lu jëm ci wàllum taxi ci ceeb bi ak bele bi daan nañu koy dindi su nag lu jëm ci wàllum huile bi maanaam cinq pour cent la lu jëm ci wàllum droit de douane loolee tamit ci ceeb bi ak bele bi daan nañu koy teggi journal bi nee na li nga xamante ni état bu Sénégal teggi na ko ci ay taxe boobu nag marmé état bu Sénégal dina ñàkk lu toll ci benn milliard weer wu jot yéen a kaay gi de la Soleil ñu xëy fekk fo Omar Diallo mi nga xamante ni mooy directeur du commerce intérieur nee na nag am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi wax naan taxes yi état bu Sénégal daf koy yokk waaye nag loolee amul amul benn taxe boo xamante ni état bu Sénégal maanaam yokk na ko yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Momar Ndao bu Askusen moom nag nee na ñi nga xamante ni ñooy compagnie sucrière sénégalaise ngar dajo gi nga xamante ni moom lañ ngar dajo lu jëm ci wàllum suukar loolee ci bopp moo war a jeex ci réew mi boobee maanaam nag fin monopole yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Assome Diatta muy défendre ñi nga xam ne nag ñooy compagnie sucrière sénégalaise yéene kaay gi da la témoin nee na en tout cas li am ba des sall ñenn ñi ngi wax naan waaw ceeb bi dafa cher diwlin nga dafa cher suukar si dafa cher waaye nag lépp loo xam ne jëm na ci li ñuy tabaxee tamit dafa cher ci réew mi ndax yéene kaay gi nee na fer bi cher na ba mara détaillé béton bi tamit dafa cher ciment bi tamit dafa cher ba mara détaillé yéene kaay gi nee na naanaa naanaa bii ñu jaay ci mbedd mais yéene kaay na am na opposant opposant yi nag du Ousmane Sonko du Khalifa Sall du Karim Wade Macky yi gën a rëy mooy inondation yi nga xam ne ma ngi jaabaa jonge ci réew mi askan bi sonn ba maara day taale Macky Sall nag opposant yi gën a rëy mooy dund gu metti gi nga xam ne ñu bare bare ñoo ngi dund ay jafe-jafe journal bi nag nee na ñooñee nag ñooy opposant Macky Sall dañoo nag fas yéene jàmmarloo ak waa Benno Bokk Yaakaar yéene kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Maodo Malick Mbaye moom nag ci mouvance présidentielle la bokk nee na élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal du yomb de du yomb ci Benno Bokk Yaakaar la ko waral nag mooy état bu Sénégal jamono ji moo war a lijjantee njëg yu cher yi nga xam ne nag jamono ji ma ngi ci réew mi ak mer mi nga xamante ni askanu Sénégal la ñenn ci ñoom mer nañu ko ba mara de taali yéen kaay gi di réew mi quotidien libération sud quotidien l'observateur ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko njiitul Pastef nee na Macky Sall du ab démocrate yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Macky Sall Ousmane Sonko nee na Macky Sall daal benn liggéey la am maanaam dal ci kaw opposant Macky Sall ci boppam la nekk ci réew mi ba pare nag Sénégal ndax ñaawal askanu Sénégal weesuwu la yow nga jël soixante yoo xamante ne askan wi ñoo ko mooman nga jënd ci ab avion dugg ca biir avion ba naan damay selfie loole nag mooy yàpp askanu Sénégal dëggantaana Ousmane Sonko ne Macky nag bay boo mu leer ko ne coalition bi gën na ngande ci histoire politique Sénégal Macky Sall dina jàmmarloo ak mooma ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Ousmane ne yéen Sénégal yi nag yéen laay waxal na leen ne mbënd maa ngi nii aska wi sonn ba maara détaali Macky Sall demu fa de waaye sax déggu leen ko sax mu yëkkati ci kàddoom te loole nag dafa ñaaw ba maara détaali yéene kaay gi di réew mi quotidien ak le soleil ak le témoin xëy dañu tàggee xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall inna lillahi wa inna ilayhi na journal bi nee na moo nekkoon juróom-benneelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall yéene kaay gi de la tribune xëy dañu xibaar naan ñu opposition bi nag bi nga xam ne jamono ji teg nañu ko baye boo ñu def ndànk ndax bëri na ay ndëgg sërëx yoo xam ne ñoo ngi leen koy tegal de Dakar Times nee na Macky Sall nag envoyé na Khalifa Sall ab message Macky Sall dafa yónnee Khalifa Sall ab message ngir nag bëgg koo rencontrer ngir nag waxtaan ak moom ngir nag négocier ak nag Khalifa Sall ngir tas li nga xam ne maanaam mooy coalition bi yéene kaay gi di Dakar Times nee na Macky Sall jamono ji amul benn ministre boo xam ne maanaam respecté na Macky Sall te Macky dafa am yu bari yoo xam ne ma ngi koy sant ay ministre ma amul lenn loo xamante ni ministres yi ñoo ngi ko ciy jëfee yéene kaay gi di Stades xëy dañu xibaar naan ñooy éliminatoire mondial 2022